jërë ngeen jëf mbokk safoo télévision Futur Média dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a ñu ne ma ko jukki dina bokk ci ndaje wi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal moom moo ko sàkk woon ngir daal di addu ci lépp lu ñeel dundu gu cher gi fii ci réew bu Sénégal jàppale ne nga xam ne moom moo di ceeb bi daal dañ ciy téq lu toll ci euh, juróomi euh, dërëm kilogramme bu nekk lu toll ni li nga xam ne moom moo di huile bi maanaam duulin bi euh, téq nañ ci li nga xam ne nag moom moo di ñaar fukk yenn ci ay sénégalais wax nañu itam li nga xam ne moom moo di seen xalaat ci ndaje wi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal mi ngi ko doon amal mu ñeel wàññi ko bi tax na itam ñuy sàkku rek mu daal di amal aw suivi maanaam loo xamante ni ah, dina mën a tax ñu daal di ah, biral lu ni mel ci jotaay xibaar yi daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di Oumar jàlloo xam ngeen ne moom mooy directeur bu commerce intérieur daañu waxtaan ak moom dogal yi nga xam ne njiit bu réew bu ah, Sénégal jël na ko ak itam nees def ba taxawalal ay matuwaay yoo xamante ni nag askan wi rawatina jaaykat yi daañu mën a dëppook li nga xam ne moom moo di fukk ak benn ci ay dogal yoo xamante ni mi ngi bàyyeekoo ci gouvernement bu euh, Sénégal daañu waxtaanee leneen mu ñeel ajub màkk atum 2022 xam ngeen ne euh, comité wi nga xam ne moom moo séq wàllu organisation bi amal nañ aw euh, bilan ci wàll wi lu neen itam loo xamante ni bëgg nañ gouvernement bu Sénégal daal di ci dox jéego mu ji ajub màkk atum 2023 ndax itam jàpp nañ ne taxe yi nga xam ne saoudien yi daal nañ koy amal dafa rek daal di cher ci sénégalais yi daañu waxtaanee wàllu tàggat yaram xam ngeen ne jamono yi nag Siteu ak itam Papa Sow ay waxtu moom moo des ñaari mbar yooyu nag daal di euh, sëgg fa nga xam ne moom moo di ci arène nationale ñoom itam euh, daañ xam ne tuut ana kan moom mooy euh, féete kaw ci diggante ñaari mbër yi lee laata ñu yëkkati jotaay bi daañ leen ci wax lu leer wala bokk ñu daal di leen di baaxee lenn ci luy tukkee ci boobule combat tënk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen taaxil tuuti li ñu dëxëñ ñu daal di koy faram fàccee jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar ñu door ko nañu ko junjee woon ndaje wi nga xam ne ci sàkku teef njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall mu ñeel dund gu cher gi wàññi teef fii ci réew bu Sénégal jàppale ne daanaka daal nañ koy tënk ci fukk ak benn ci ay poñ lu ci mel ni ceeb bi daal nañ ci teq lu toll ci juróomi dërëm li nga xam ne nag moom moo di kilogramme bi lépp lu ñeel itam diwlin bi teq nañ ci ñaar fukk lépp lu jëm itam ci frais scolaire yeeg yeneen yu njiit ah, daal na ci indi ay ah, dogal ñu teewlu Pape Fara ñi nga ak itam Amadou Ba ñoo teewoon ndaje wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki démb gannaaw ab waxtaan bu yaa mu amaloon ko ak ñi nga xam ne ñoom la ko séqal fukk ak benn ci ay ndogal lañu jël ngir fexe askan wi dund gi wàññeeku seen kaw yiñ ci gënoon xaar nag bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy dundee. waaye li nga xam ne moo tar ba mooy ceeb bi ginnaaw bi ñu defee effort yi ñu defoon ba wàññi presque juróomi dërëm kilo bu nekk riz indien bi danañ ci wàññiwaat yeneen juróomi dërëm ci kilo bi léegi mu war a jar kon juróom benn fukk ak juróom diwlin bi nga xam ne moom lañu ñu gën a consommer muy huile de palme boobu tam ñaar fukki dërëm lañ ci wàññi ci litre bi cent lay jógee dem mille deux cent donc suukar si tam mu ngi jóge ci téeméer ak ñaar fukk muy six cent francs dem ci téeméer ak fukk ak juróom kilogramme bi. leneen loo xam ne ñu bëri ñu ngi ko dem xaar wàññi njëgul loas bi loolu nag jël nañ ci ay décision ci wàllu caution bi ak yeneen yu nu mel. juróom benn fukki junni la toll wala lu ko yées moo xam ñeent fukki junni ngay fay ñaar fukk lu fukki junni ñooñu dañuy wàññi vingt pour cent ci liñ doon fay vingt pour cent nag bu doon trois cent mille la buñ ko calculer day nekk soixante mille. bu dee deux cent mille la naka noonu ñu xool muy quarante mille bu dee cent mille la muy vingt mille et cetera donc moo tax ñu joxe ko en pourcentage waaye ñi nga xam ne nag li ñuy fay luwaas diggante juróom benn fukki junni la ba téeméeri junni ci weer bu ne ñooñu dix pour cent la ñu leen si wàññil dix pour cent xam ne nag ñoom seen luwaas ëpp na téeméeri junni borom barke yeeg borom koppar yi te ñooñu juróom 5 pour cent lañ leen di wàññil. pension yi bu dee ñaari weer la tam benn bi moom danga koy joxe bi ci des ñu ñu tàllal ko ci at bi. lu jëm ci njàng mi wàllu inscription frais scolarité yi yooyu tamit wàññeeku na. ba dem sax ba laalaale école privée yi. ñu aussi wàññi frais d'inscription ci collège ak lycée muy moyen et secondaire public maanaam école état bi. foofu lycée yi ak collège yi inscription yi léegi ci juróom-benni téeméer lay yem maximum mën na dem ba junni ci kaw selon établissement bi ci wàllu enseignement privé nag parce que privé moom euh, ñoom dañuy fayeeku waaye foofu la ñu sàkku si ñoom mooy une baisse de dix pour cent dix pour cent sur les frais d'inscription du préscolaire au secondaire cest à daan. njiitu réew mi xamle na yeneen ndogal dinañ wàcc jëm ci wàll wér-gu-yaram gannaaw bu ñu waxtaanee ba juboo wax na kii di premier ministre ak ministre bi yor wàllu njënd meeg njaay mi ñu fexe ba taxal ab mbootaay boo xam ne bépp ndogal bu ñu fi jël ñu respecté ko. jërëjëf Pape Fara ñi ngi yaa ngi koy wax eh, jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu jënd beeg njaay mi tax na itam ñu am kenn koo xamante ni itam eh, sañ nañu yëkkati ay kàddu daal di àddu ci li nga xam ne nag moom moo di eh, dogal yi nga xam ne njiit mu réew mi daal na koy jël ni ki démb Oumar Diallo lay wuyoo xam ngeen ne moom mooy directeur bu commerce intérieur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Diallo. maa ngi leen di fay di nuyu. téléspectateur u TFM yëpp mm-hmm. yu nekk fii ci Sénégal ak diaspora bi mm-hmm. euh, dégg nga euh, élément bi nga xam ne euh, moom la ñu def léegi mu ñeel fukk ak benn ci ay dogal yoo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal moom moo ko jël ngir dund cher gi sa gis-gis ci wàll wi lan lay doon waaw jërëjëf gis-gis bi mooy ñaari moo rek yoo xam ne président de la république daf ko wax démb mm-hmm. mu résumé li nga xam ne ni moom moo tënk yëpp mesure onze mesures yi mu mujjee jël benn bi dafa ne mu ne concertation nationale yi mu jël mhm. ne nañ ko doxal depuis le vingt six septembre dafa am lu muy saafara mhm. mooy lutter contre la vie mu ne benn mu ne ñaar dafay soulager les populations ou les couches vulnérables te boo ko xoolee onze mesures yi mu jël à l'issue du conseil national de la présidence euh, spéciale bi ñu def démb à la présidence onze mesures yëpp dafay lutte contre la vie chère mais ensuite dafay dimbali. ñi nga xam ne ni mooy ñëw di doole yi mooy les couches vulnérables. mooy seen loxo jotul seen exactement moo tax mu accès intervention ci benn produit essentiel boo leen ko xoolee ceeb la njëkk a lim. parce que fii Sénégal ceeb mooy li nga xam ne ni moom mooy la denrée essentielle de base. boo xam ne ni benn kër boo xëy suba ba ngoon am na sax ñu ko fay lekk ñetti yoon matin midi soir. donc président jël ci ay dogal yu am solo. mu ne ceeb bi dinaa ci wàññi juróomi mu ne diwlin bi dinaa ci wàññi ñaar fukk. mu ne suukar bi dinaa ci wàññi juróomi dërëm. xam nga kër boo dugal wàññite ci ceeb diwlin suukar pratiquement wàññi nga. kenn wàllu souci wala jafe-jafe yi ngay xam moom mooy am li ñuy wax dans le panier de la ménagère. Mm-hmm. ñaareel bi mu indi beneen mesure sociale boo xam ne ni tey képp koo xam ne ni salarié nga. Mm-hmm. di fay lu xam nga ni que soo amee cent francs mm-hmm. cinquante yëpp maanaam ci loyaas la jëm. président ne léegi non seulement damay wàññi loyer bi mais ensuite li nga xam ne ni moom mooy jëm ci ni ñuy jotee bi ci kër yi. dama koy. gën a woyefal. d'accord. d'accord lu mooy li nga xam ne moom moo di euh, wàllu euh, luyaas yi daañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo waaye itam xam nga ne ndaje bu ni mel ñenn ci ñoo xamante ni itam ñëwoon nañu fa daal nañuy àddu ci wàll wi moo xam li nga xam ne nag moom moo di euh, dogal yooyee ñenn ci détaillants yi wala bokk ñi nga xam ne dañuy jaay grossistes itam daal nañuy àddu wax itam détaillants yooyee ñu bàyyi leen xel bu baax baax ci dogal yi nga xam ne nag jël nañu ko ñoom lañ leen di seen ay kàddu dellusiwaat ci plateau bi te nag dama bëgg fàttali nit ñi ne yokk bi duwut dañoo bëgga jaay lu cher déedéet dafa fekk ne nit ki euh, état bi des fois dafay def faveur ak industrie bi ak grossiste bi peut-être xam naa danaan ñoo ñoo am doole ñoom ñoo mën a dem di jënd ji ay milliards wala ay millions ñun nag benn saako ñaari saako mais ba ñëpp tout le monde est important. ko yi moom bu ñu defalee suñu frais yi nga xamante ne moom mooy transport bi moom mooy. frais emballage beeg yooyu yëpp rek incha allah lépp lu ñu tegal ci ci frais ci. état bi di ñaan nguur gi mu am suivi surtout parce que lu ñu daroon 2014 donc la ñu bañ mu dalaat ñu parce que 2014 amoon na wàññite boo xam ne donc amul di ñaan rek donc lii am suivi donc ñu topp ko donc ça sera très une très bonne très. muy mesure yoo xam ne ñëpp ci d' accord te ñu mun ko appliquer sur le terrain heureusement am na 1000 volontaires de la consommation yoo xam ne may nañ ñu ko. pour ñu accompagner ministère du commerce sur le terrain mais nag dafa am loo xam ne réglementation bi daf ko wax mooy que prix yi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ war a jaayee marchandise bi dañ ko war a wan consommateur bi nga xam ne bu ñëw di jënd ci boutique bi dina xam produit bi ñaat la war a jar jàpp nañ ne euh, néew na ci réew mi ñu am euh, réforme boo xam ne ñu ko liggéey ca suuf ba yëkkati xalaat bi ñooñu mooy ñu nekk sur le terrain ñooñu nag wane nañu ñoom jafe-jafe yi ñu am pour dëppale seeni pratique gouvernement bi bëgg. je pense que c'est un pari euh, réussi parce que il y a eu un engagement très fort de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et euh, nous avons euh, entendu des mesures euh, significatives qui ont été prises par le chef de l'État notamment en matière de contrôle du loyer de fixation de la caution en matière également de, subvention des denrées de première nécessité comprises et rangées dans les tiroirs il faut que les Euh, et d'esprit patriotique pour que on puisse respecter les règles du jeu surtout ñu daal di koy respecté loolee nga xam ne itam ay dogal la monsieur Diallo bu ñu ñëwaatee bu fekkee sama xel baax na foog naa ne weeru euh, euh, février atum 2022 dogal yu ni mel jëloon nañ ko ci réew mi waaye ba tey jile jëmmal ko dafa nekk jafe-jafe li tukkee ci njiit mu réew mi démb nan la ñuy def ngir rek daal di koy jëmmal waaw euh, xam nga yaa ngi wax euh, tudd contexte boo xam ne ni moo ñu jiitu woon muy février 2022 mm-hmm. parce que ci jamono boobu am na ay prix yu ñu jotoon a mm-hmm. ñu gis ni que ci gannaaw ca njëlbeen ba prix yi pratiquement pour ñu appliquer ko amoon na difficulté mm-hmm. difficulté bi li ko mojoon lu ko indi woon mooy simplement rek prix yi dañ ko fixé fin fin février le lendemain wala ñetti fan guerre Ukraine bi éclaté donc contexte bi changé du jour au lendemain tey nekkuñu ci contexte boobu dañu nekk ci contexte boo xam ne ni dund nañu guerre bi ba pare mais li am ren ci en matière de fixation de prix mosu fi am maanaam ay concertation yoo xam ne acteurs yëpp dañu dugg toog ku ci nekk wax ne bu ñu ko doxalee nii marchandises yi mën na wàcc wàññeeku nii wa ilaa même bu wàññeekuwul tamit dinañ xam ne que prix yi ñuy appliqué c' est prix sincères maanaam la sincérité des prix donc tey boo gisee commerçant détaillant bi taxaw di wax c'est parce que ñoom pour la première fois ñu associé leen ñu dugub bokk ci fi ñuy waxtaanee ci prix bu njëkk c'est vrai techniciens yi ñu nekk ñun dañu doon tëju suñu bureau jël ay information ci marché bi ak li nga xam ne moom la ñuy jàngatee marché bi ñu déterminer ay prix mais bi yoon acteurs yëpp lañuy ñuy moo waral application bi warul am problème parce que ñoom ci seen bopp ñoom ñoo def ay propositions dans les commissions donc ñun dañuy formaliser li nga xam ne ni décision yooyu moom la président de la république arrêté démb dañ koy formaliser mm-hmm. et may préciser que ni prix yi nga xam ne ni moom la président annoncé démb c'est des prix qui sont valables pour la région de Dakar étant entendu que pour les autres régions lu mel ni li ñu def démb dina gouverneurs yi dinañ ko convoquer li ñu wax les conseils régionaux de la consommation ñoom tamit dinañu déterminer pour chaque produit boo xam ne ni président andi ci wàññite pour chaque produit boobu noonu ci région bu nekk danañu wax foofu ñaata lay jar donc affaire bi dafay nekk graduellement def nañu Dakar démb à partir de lundi semaine bii ñëw région yëpp pratiquement dinañ tenir seen conseil régionaux de la consommation ci biir seen bi comme ça ñu mën am une application homogène sur l' ensemble du territoire des même prix ak conseil conseil régionaux yi ñu fekk si ci région yi ñu mën ko appliquer. Euh, euh, léegi euh, li nga xam ne teq nañ ko ci njët li moo xam duwlin beeg ceeb léegi ni ñuy xeetoo kañ la dogal bu ni mel lañ koy commencer appliquer. waaw mooy li ma lay wax président jël na dogal bi samedi. ñun léegi techniquement ñun ñoo ko war a formaliser à travers des actes administratifs et des actes réglementaires mooy lan mooy que ni tey li nga xam ne ni mooy ceeb dëwlin suukar ak yooyu c'est des prix yoo xam ne dañ koy homologué homologation nag ku ko dégg dangay nekk ne ministère du commerce mooy jël arrêté ne prix yi nii lañ ko fixé donc à partir de demain lundi dinañ defar arrêté yi nga xam ne ni moom mooy fixé prix wu ceeb dëwlin suukar ciment euh, fer à béton euh, viande de volaille yooyu yëpp ay arrêté lay doon am na ay arrêté sax yoo xam ne ni interministériel la maanaam ñaar wa ñetti ministre ñoom ñoo ko war a muy par exemple li nga xam ne ni moom moo jëm ci yàpp bi ak volaille bi ak yi nga xam ne moom moo jëm ci frais de scolarité yi loolu arrêté interministériel lay doon bu ñu ko xefee ba jël nag danu koy yóbbu fi nga xam ne ni mooy enregistrement secrétariat général du gouvernement. bu ko enregistré ñu jël ko yóbbu ko foo xam ne ni moom la ñuy wax publication au journal officiel. xam nga journal officiel nag acte réglementaire boo ko fa yóbboo. dañu am délai légal de 72 heures. boo xam ne dañ ko war a respecter pour que mu ma nekk opposable au tiers. d'accord léegi fa ñetti fan yooyu nag. mooy délai légal bi nga xam ne ni pour entrer en vigueur d'un acte juridique fixant un prix. à partir de là lañ koy mën a déterminer. ce qui nag après lay amatul. Mmh. donc application rek waaw waaw moo ci topp ndax itam waajal ngeen yenn ci euh, agent yoo xamante ni des nañu wàcc ci terrain bi ngir xool képp koo xamante ni dëppoowoo ak itam dogal bu ni mel lan la moo la ci mën a fekk ndax itam taxawal ngeen numéro vert boo xamante ni euh, consomateur bi nga xam ne nemmeeku na lu ni mel ci euh, marché bi mu mën leen a jot. waaw léegi xam nga application prix moom dafa dafa ñaar. Mmh. ki nga xam ne ni moom la yoon sas ne ko léegi lii nga war a jaayee mm-hmm. mu xëy rek def ko problème du am mm-hmm. mais aussi il faut que administration bi nga xam ne ni moom la ñu jox sañ-sañ muy ñëw saytu prix yi mm-hmm. mu wàcc ci terrain bi aussi pour faire appliquer les prix loolu ñun suñu liggéey la te président de la république xam na ni ñun am nañu volonté bi am nañu euh, pas-pas bi ak kàttan bi mais effectif bi gannaaw doyul président daf ñu renforcer jox ñu pratiquement cent vérificateurs yoo xam ne recruter nañu pratiquement les soixante cinq léegi nag mu ne dinaa leen dollil ay mille volontaires yoo xam ne dañuy jàppale leen ci liggéey bi volontaires yooyu dañ leen di former encadrer leen ñu ñëw ànd ak ñun ñuy dem di def contrôle bi nga xam ne parce que liggéey bi aussi dafa bari parce que prix yi li ñuy homologué moo bari donc il faut que ñu am un com un personnel complémentaire. boo xam ne dañu mën a dimbali ñu wàcc ci terrain bi de manière efficace. léegi nag dañuy toll ci phase boo xam ne ni nag phase de contrôle la de constatation et de sanction. parce que aussi ku ci respecté wul prix yi yoon dafa am ay daan yu mu teg prévoir ko. c'est valable pour denrées de première nécessité yi nga xam ne moom la ñu fixé prix yi. mais c'est valable aussi en matière de location. exactement waaw wàllu location yi également euh, dogal yi nga xam ne euh, jël nañ ko ndax mën nga si euh, dellu si waat. waaw may présiser que ni aussi ci wàllu location bi. Mhm. foofu décret lay président di jël. Mhm. waaw parce que fixation tarification location décret présidentiel la war a doon. Mhm. donc léegi décret yi président bu ko xefee ba jël décret bi dafay ne léegi. benn fànn ci waari maanaam condition d'accès au loyer xam nga tey boo ko xoolee nit ñi képp kuy dugg Euh, léegi li ñu gis ci ci marché bi mooy que ni nit ñi ñeenti weeru location dañuy laaj ñeenti weer avance. courtier yi mhm. du courtier yi rek sax d'ailleurs mais ak boroom kër yi ak bon peut-être les même les agences bon donc loolu lañ fi fekk pratique boobu. Mhm. léegi te décret bi ñuy jël dafay wàññi loolu ba nga xam ne ni képp kuy jël caabi wala location un mois et demi rek ngay ngay ngay ngay fay ci naka dañ la naan ni que léegi costion bi deux mois la. Mhm. benn mois bi da nga koy fay balaa ngay jot sa caabi. Mm-hmm. mais li beneen weer bi des ci caution bi dañ la koy diviser par douze. Mm-hmm. nga bool dugal ko ci sa ci sa ci sa ci sa location. Mm-hmm. ñu ne la léegi courtier bi xam nga dañ la daan ñëw walla agence bi mu ne la non démarche bi may def pour wutal location. un mois nga may un mois nga ma ciy fay. ñu ne léegi denkatul un mois genn wàllu. genn wàllu weer la. Mhm. ce qui fait donc léegi yow genn wàllu weer un ngay ngay un mois ngay joxe caution. Mhm. ak genn wàllu weeru commission bi. Mhm. léegi li koy mën a gën a mottali nag mooy ñu ne la nag dañ la naan location bi da ko doon fay d'avance. maanaam balaa ngay dugg da ngay fay location mais léegi ñu ne location bi dañu koy fay weer wu dee. voilà loolu mooy mesure bi maintenant nag baisse yi ci taux bi ñu ne nag léegi képp koo xam ne ni da nga am njigu location bu toll ci euh, zéro franc. ba trois cent mille mhm. dañuy wàññi vingt pour cent ci li nga xam ne ni moom ngay fay mhm. bu weesoo trois cent mille jëm ba cinq cent mille ñu wàññi ci dix pour cent mhm. bu weesoo cinq cent mille nag jëm kaw cinq pour cent la ñuy wàññi d'accord donc loolu mooy ñenn des deux mesures phares yi nga xam ne ni moom moo am ci location bi te loolu dañ koy formaliser par décret euh, d'accord ginnaaw par décret bi ñu koy formaliser am na itam ay ndaw yoo xamante ni daañu saytu lu ñu mel ci terrain bi dëgg la parce que au la même de services yi ñuy yor ñun. Mhm. direction du commerce intérieur. Mhm. qui sont des agents assermentés. il y a des agents assermentés yoo xam ne dañu nekk dans les dans les dans les services des impôts. les force de sécurité yi nga xam ne ñun dañuy soxla ñu appuyer ñu ci loolu on va les faire intervenir parce que dina am ay moments mais li gën a am solo. Mhm. mooy l'organe de régulation du loyer. organe boobu tey moom la ñu teg parce que dañuy jël décret pour installer ko. képp koo xam ne ni am nga problème location xam nga bu njëkk nit ñi dañ daan dem fu ne di di laajte fu ne. Mm-hmm. léegi organe boobu moo fi nekk. Mm-hmm. boo amee problème da ngay xam ne organe bi fii la nekk. Mm-hmm. ma dem foofu ma porté sama problème. wa ila comme wax nga ko sànq. am na numéro vert bu fi nekk. le 800. 80 77 77. dinañ ko mën a sax après ngeen affiché ko. Mm-hmm. mu leer numéro vert boobu képp koo xam ne ni mënuloo déplacé wu. dem ci commission bi. amuloo moyen pour def da ngay woote ci numéro bi. Mm-hmm. nga joxe mm-hmm. wax sa problème. dina am prise en charge naka lañ koy mën a. mais rapidement leneen ci loo xamante ni euh, soxal na euh, waajur yi ñi nga xam ne euh, bu ñu déggee ab wàññi teef dañuy génnee ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon ci kër yi bu ñoo ñu demee ñeneen ñi ñuy luyee tam ñu mën a yokk li nga xam ne moom moo di njëgub location bi ndax bàyyi ngeen leen leen xel. waaw loolu loi bi daf ko régler hmm. parce que nit ki mënuloo ko génnee sa kër sans pour autant nga am motif motif motif génne location maanaam hmm. tey ku war a génne loi fayloo ñàkk pay rek moo tax tout de suite ñu mën la génnee fayloo te loolu il faut nga dem am décision tribunal mooy mën a demander avis d'expulsion pour que yow ñu mën la génnee pour défaut de paiement mais bu fekkee ni weesuwul weesu na loolu hmm. amul beneen moyen boo xam ne ni locataire euh, bailleur bi. Mhm. mën na génne tout de suite locataire bi lu dul nga respecter procédure bi. d'accord procédure bi ñaar la. d'accord may ma rek tuuti rek parce que c'est important. voilà <laughs> mooy que nga ne léegi man dama bëgg defaraat kër gi pour génne pour pour pour que locataire bi mën a génn mais loolu danga ko war a justifier devant le juge te boo génnee da nga wax lu tax. ngay génne ngay ngay ngay ngay génne su dee da ngay da ngay defaraat. Mm-hmm. dañ la wax ni kër boo xam ne da nga koy raser waat. Mm-hmm. tabaxaat ko la. ou bien nga ne léegi damay koy génne parce que dama ci bëgg dugal sama njabootu bopp. d'accord loolu ñaari conditions yooyu rek moo mën a tax ci délai nag 6 mois. Hmm. ngay mën a génne locataire bi fekk ni juge bi d'accord na ci. d'accord d'accord jërëjëf mu doon doonoon Oumar jàlloo xam ngeen ni moom mooy directeur bu commerce intérieur moom lañu doon dalal ci jotaayu xibaar yi naam la bëggoon a waxtaan bari na waaye waxtu wi moom moo ñu xaw a tënk ñu wayal xibaar yi dem ca diwaan bu Fatick foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay mi xam ngeen ne yenn ci jéego itam def nañu ko ngir rek rek ñu mën a bay ceeb bu baax a baax Caritas Dakar itam ànd yenn ak ci ay euh, ñi nga xam ne ñoom la fas yéene euh, jëflanteeg boobule liggéey ngir itam wàllu ceeb doon loo xamante ni nag day doy foofee Aminata bi Abdou du Bey moo daje ak ñenn ci ñoom ñu seetaan reportage. tooli ceeb yi nag ci commune yu Diouroup ak itam yi jaare la ñu nekkee féete ci biir département bu Fatick fi mu ne nag jiw yi daanaka ñor nañu ci yenn tool yi sax béykat yi ceeb yi lu ci ëpp doonay jigéen tàmbale nañu di góob ceeb bi ONG Caritas Dakar nag ñoom ñoo leen di gunge te itam di leen jàppale ñoom nag ñu ne ren ji yaakaar nañu ni daañu am ay rendement yu baax. te gis nañ ne moom vraiment ren moom euh, ceeb bi jox na bu baax parce que comme ndox am na donc lu tonne une tonne à l'hectare donc wër na ne moom vraiment il faut que nit yi aussi béy ceeb pour mën a dund mën bu baax a baax ngir rek fexe nu mbayum ceeb mi amee doole ci bu Fatick ñoom li ñu bëgg rek mooy fexe noo xam ne nit ñi daañu am ceeb bu bu ñu dundee ci gox bi waa Caritas nag jàpp ne noonu rek la ñu mën a xeexee li nga xam ne moom moo di xiif. soo gisee cherté bi ceeb bi il faut que nit yi béy ceeb a seen dépense mais ñu nga accompagner lu mat junni junni femme femmes c'est mille femmes à peu près ak ak euh, yi aussi te ça fait 43 groupements ñu accompagné. ñu ñu jagleel projet bi nag fii mu ne ñoom ne tàmbale nañu di ci gis seen bopp bu baax a baax. lii ba mu fi duggee ba léegi wax dëgg fa yàlla dañ ciy gis suñu bopp bu baax ñu ciy gis suñu bopp ndimbalu jaboot la daal waaw. waaw ah, am nañu njëriñ moom. waaw euh, euh, ba ñu ba ni bàcci ko seddoo ko. waaw am na njëriñ moom. bu weesoo commune yu Diouroup ak itam yu Jaareex Caritas Dakar projet bu ni Loul Sessène féete itam ba léegi ci biir département bu Fatick Loul Sessène nag suuf si bëri loolu loo xam ne xorom si daf ko yàq waaye ONG Caritas ñoom fexe nañu ba defar fa ay tooli ceeb yoo xam ni askan wa dëkkee ca Loul fi mu ne ña nga fay dem di bayub ceeb mbokk yi boobu ak léegi yéen a ngi gis ñu koy partagé ci euh, réseaux sociaux yi jàppale di nag suñu naataango moom Pape Alé ci la jamono mi ngi ci euh, ndungu euh, siin ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ko teg bokk na ci élément yu sûreté urbaine ci sàkkuteefu ki nga xam ne moom moo di procureur de la république patron bu site Dakar matin wile ñu njort rek dafa daal di génne yenn ci ay xibaar yu ñeel mbirum ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr ñenn ñi itam ci ñi nga xam ne ay way taskatu xibaar xibaar lañ itam jug nañu ngir rek daal di euh, fexe def kéem kattan ba xam rek li nga xam ne euh, moom moo euh, sabab lu ni mel daañu ci dikkaat ci suñ yeneen jotaayu xibaar fii ci télévision future Média ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju comité wi nga xam ne itam moom moo daal di seq lépp lu ñeel ajub màkk atum 2022 daje noon nañ ngir di amal ab bilan naka noonu itam lépp lu ñeel ajub màkk atum 2023 daal dañ ci àddu li nga xam ne itam moom moo di taxe saoudienne yi njort nañ ne rek dafa cher bëgg nañ gouvernement bu Sénégal daal di ci def aw jéego daje wu ni mel nday Mati Dieng moom moo fa teewaloon télévision Futurs Médias. donte anam bi ñu ko defee mingoowul ak bañ ko daan defee ajub màkk bu ren bile mën nañu jàpp ne lu ci ëpp jaar na yoon. daanañu euh, commencé inscription yi juróom benn weer jëm ñeenti weer laata ak di ñëw bi yoon ñeent fukki fan ak juróom ci lañu tàmbali. inscription yi xam ngeen ñeent fukki fan ak juróom lu gàtt la waaye ñu gërëm yàlla azza wa jal defal ñu ñu dem ci jàmm dellusi ci jàmm. mbir yi daanaka jaar na yoon waaye terewul nag war a mën a bàyyi xel ay jafe-jafe yu ci mel ni limub ñiy àcc yi nga xamante ne dañ ko wàññi ren waaye itam koppar gi ngir daal di koy amal dañu ko yokk. liñ daan yóbbu. daana mat euh, euh, fukki junni euh, ci ay pèlerin ak ñaari junni yu teg juróom-ñetti téeméer ren ñu ngi yóbbu juróomi téeméer ak juróomi junni juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer suma jumula ah. nga gis ni kon wàññeeku na gis nga yi tamit ni gannaaw Covid bi lépp dafa yokk yokk googule dafa laal billet avion bi mais dafa laal nekkin wa ca màkk agence de voyage privé yi ci li muy ñaax kilifa yi moo di ñu di fi jéego ci taxe saoudienne yi nga xamante ne yokk nañu ko bu baax te taxul seen nekkin ca màkk daal di ñoŋ matutoon 2000 ñu ñëw ba def ko 5000 poussière ñu fekk tànt yi dafa gën a xat muy benn ñu delluwaat ñëw fekk ñu wàññi matelas yi doo mën a sa yëngatu teg ko ci loxo président mu jottalil ñu ko waa état saoudien pour que vraiment loolu ñu xoolaat ko. ñi leen nga xamante ne ñoom ñoo seq aj gi ca Màkka daal di amal ab daje file ci Saly ne sax bu ñu ci génnee dinañu tënk ay mbir yoo xamante ne bu ñu ko jébbalee kilifa yi dinañu mën a waajal ci anam bu mucc ayib aju 2023 bi la ñu jëm jaajëf euh, Ndeye yi waxoon naa leen ko ni ki euh, tey jile nag ci dibeer bi xam ngeen ne Papa Sow ak itam Siteu dañu euh, laale ci kanam tuuti lay doon fa nga xam ne nag moom moo di ci arène nationale combat bu di itam daañ ci àndaat ak yéen bu baax a baax daal di leen di xibaar ana kan rek moom moo daal di féeti kaw ñu itam ñu jaare fa daal di bural jotaayu xibaar yi des leen ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teew ngir jukki xibaar yi ci kàllaamay français man itam ma jox leen dig daje ëllëg incha allah à partir de ci seen émission édition info du matin mu ñeel li nga xam ne ah, moom moo gën a fës ci li yéenekaay yi xëy fësal ni ëllëg ci altine ji lay doon jàngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm